amis internautes bienvenue dans Faral foot sommes ici académie de foot à Dakar Sacré-Cœur c'est le numéro 10 euh, de l'équipe pro Moussa Kanté l'un des armes offensives euh, du coach Hassan Fall moom la centre euh, depuis 10 ans il a fait toutes les catégories cadet junior et senior Moussa nous wax un peu son parcours ses performances mais aussi ses ambitions le club ren aussi def na performance bu baax a baax def na progression aussi bu rapide dinañ ko waxtaanee fii ci Faral sa foot Moussa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay waa 13TV moi je m'appelle Moussa Kanté j'ai 18 ans cette année-ci maa ngi DC depuis longtemps waaw ah, fii laa defee lépp daa mel. fii la jàngee euh, depuis 2010. 2010 tey Moussa tëboo tëb rek ñëw Dakar Sacré-Cœur nan nga nan nga fi ñëwee nan la la DC découvrir. Euh, dañ maa ne woon fii pour euh, si école foot bi. Euh, si baby foot a commencé ba étape par étape ba maa c'est groupe première. C'est intégration bon fii doo la nan la demee parce que c'est pas évident doon naa léegi da nga doon jouer ay petit quand ci mbedd et tout jóge ci suuf ñëw ci gazon qu'est-ce que ça te fait ce premier jour fii ci centre ah son premier jour neexoon na trop parce que ma ñëw découvrir euh, ay ay terrain yu bees jóge ci suuf ñëw si synthétique daf ma motiver bu baax moi, baax moo tax bu may jouer amour laay jouer.

nan nga yëg ni kay ni yow évoluer nga si bu baax ba ak formation fi nan lay nan la nan lay demee parce que c'est pas évident euh formation bi baax na trop trop trop parce que képp ku fi génn da ngay da ngay am beneen club même bu ñu libéré da ngay am beneen club wala ñenn yi voyagé nañ ñenn yi ñoo ngi performer chaque année ñoo ngi performer ñoo ngi gis ay résultats si kanam la jot former fii DC mun naa ne Assane Fall de boo mu ñëwee moom fii laa ko fekk moom ma yor jaar naa si ay loxam ba nu mu yoree équipe première

aussi nga ñëwee ak rapidité parce que équipe bi dafa doon sooxe saa dafa naroon wàcc. ñu nga ñëwee noonu. ah dama nee ni ñun ñëw fekk équipe bi Ligue 1 di ko wàcce parce que pourquoi pas ñun ñu gën a yëkkati équipe bi parce que ñun ñu nga ñëw fekk équipe bi Ligue 1 nga wàccee ko loolu dundam nañ bàyyi équipe bi Ligue 1 déwén ñu gën a defaru jéem xool nu ñuy jëlee championnat. depuis quand nga intégré si équipe depuis daw. mais aussi coach Assane dafa gën a am dafa am confiance yow parce que dernier match gis nañu moo yor équipe bi mais dafa partir parteloo match bi. parce que dafa xam ni à tout moment mun naa décanter match bi match. ñu ma dul xaaree mun naa fa voilà Moi, tax mu am confiance ci man bàyyi ma terrain bi man tamit euh, décevoir mo wax benn yoon lu ma ma joxe lépp yàlla def à chaque fois may repasse wala may doon ren da amone objectif bu mu bu mu doon sentu ñun ñep mooy lan bàyyi équipe bi parce que commencement bi ñoo ngi doon am ay fight di gagner di perdre di nul luñ luñ nul mo ëpp sax mais après da dem ba commencé duñ sonal parce que fu ñuy jëlé 4 points ñu fay jëlé ay benn point wala ki ñooy pourquoi pas duñu gagner tamit jéem a xool leneen. loolu moo nekkoon euh, man mu naa ne ñoo ngi doon def suñu kemtulay kàttan comme football la dal football la rek parce que mën nga dugg mën nga fekk équipe boo xam ne nga xam ne yaa ko mën match bi yëpp doo koy défendre nga génn mu dugal la. catégorie yëpp mën naa ne ñoo koy défendoo 15 i 17 junior pro. dafa teel day day tooñ day day ruube day day def lépp mais nit ku baax la borom xol bu baax la quoi. joueur la boo xam ne dafa dafa bëgg liggéey moo ngi noonu agressif surtout. joueur bu rek les situations la quoi. yaakaar mën na mën na boot équipe quoi. xam naa ne Moussa lu mu daan lu mu daan football caté yeneen catégorie jéegul moitié bi fu mu toll nii. man moom erreur bi kay jox mooy bu ñu mënee mu mu mu mu jouer collectif quoi muy jouer bañ jël bal bi bëgg rek de situation moom kese. parfois day manqué un peu de concentration day bu affaire yi neexee rek day day day foo quoi. Moussa bétis <laughs> benn jour dañoo nekkoon si centre comme moom moom centre ba moom moo fa gën a tuuti moom moo gën a terrible benn guddi muy def yi fu dof rek jékki-jékki rek mu am benn benn frotté bu mu jël doon dof dof noonu rek mu diw ko si <laughs> mu diw ko si kanam. <laughs> dañ ne day loge mu ne du loge parce que day yar ay lapin ñu defaral ko kaaf indil ko ko si biir. centre bi fii ñu lapin mu jox leen lekk ba pare fàtte tëj kaas bi léegi muus bi ñëw lekk lapin yi ndaw yi <laughs> mu ne waa centre bi ñoo ko xeex ñoo ibbi kaas bi pour muus bi dugg foofu noonu léegi mu dem uti xaj ñoo <laughs> indi ko fii na ñëpp toog si saak bi di seetaan télé mu indi pitbull xam moom xaj tamit mu indi pitbull léegi benn pro bu ñuy ñaxate te dem Lyon mu mu ne taxaw leen bu kenn daw ñun ñun ñëpp ñu taxaw <laughs> rek mu njëkk Sadio Ndao. gis aussi sur le plan technique sur le tactique Moussa il est très fort Moussa sa bopp mu match jotee. ah à part déglu musique ak tooñ nekk si centre bi di tooñ rek bëgguma gis nit boo xam ne genre dafay stressé wala dafa toog am lu ko métti. maanaam fu ñu ma fekk moom maa ngi retaan maa tooñ maa ngi mbalakoo dégg nañ aussi sa ñaari copain yi sànq ñu ngi lay tooñ ñu nga la parce ak lapin <laughs> <laughs> <laughs> moom dama dafa yàggoon nekk sama passion ay yar affaire yooyu noonu dama ko yàggoon bëgg léegi ñu ne ma dañ may internet affaire yooyu noonu may man mënuma bàyyi sama li may yar suñu kër après mu ñëw fii affaire yi léegi gars yi mujjee andi affaire fii xam nañ ni a ko bàyyi ñu indi la fi defal la sa kaaf nga yer say la fin. waaw gis nga de. <laughs> mais dafa mel aussi yaa ngi yer ay xaj ay poudre parce que indi woon nga fi xaj fii nii mu ngi koy wax sa <laughs> non temps ba ñu kii woon la ko ah, sa la indi xaj pour dawloo waa DC yi. <laughs> non saana ko mënoon tooñ nga. mais est ce que jot nga am aussi sélection en équipe nationale. waaw jotoon naa am u après ma problème mu passeport affaire yooyu noonu. après mu ñëwaat.

dama koy bàyyi si ginnaaw gën a focus si. ak joueur foofu wala soit dirigeant yi. non non affaire passeport la sama passeport moo woon kii rek. ok tey boo doon améliorer sur le plan technique sur le plan tactique si terrain bi tey lan nga yow boo toogee en tant que joueur tey lan nga jàpp ni tey war na ko gën a yokk. mun naa ne gën a appliqué wu si li may def parce que jour moom munoo ne da ngay réussir say passe yëpp mais dañuy gën a appliqué wu si li ñuy def gën a focus gën a am lucidité si kanamu camp yi daal. ambition. Euh, génn dëkk bi incha allah loolu mooy sama ambition signer pro contrat pro jàppale ñëpp incha allah. Ah, tey ce moment bi amoo ay contact pour test soit ñuy contacter DC pour nga dem rejoindre benn équipe. ah déggoo gu ma leen daal. déggoo mun naa am dégg ba ñoo ngi wax ak DC mais man waxaguñ ma dara daal. moment bi nga jóg. waaw pare naa de instant yii ñëw. équipe mooy sa équipe.

mun nañ deux jours trois jours mais après programme permet de maintenir sa forme comme ça hivernal bi pas de problème. Cette relation ak joueurs terrain en dehors du terrain. ah faut comme nous avons voilà même si raté ça, pour nga d'autres affaire des non. aussi ren même Alassane ji ko fii xale yëpp dañuy wàcc ñëw Moussa ñu photo et tout mun nañu <laughs> tey loolu nan nga ko doon dundee ak ñoom. ah mbégte mbégte laa si dundee parce que voilà ñoom ñu toog si tribune bi di gis benn booy bu ndaw nekk si terrain bi comme samay morom nekk ci kaw di ma seraan man may def ma bañ leen décevoir di def ay match ma pare après man damay am parce que samay xarit dañuy ñëw mm. voilà di ma tooñ affaire yooyu di ma ne.

beneen match bi stop topp tamit ma dugalaat bi si toppaat ma dugalaat. waaw da nga teg les trois matchs yëpp dugal. wa gis nga moy trois bi yu nga dugal ci saison bi. wa trois matchs moy trois derniers matchs yi. wa def cinq passes décisives aussi cette saison. hmm ok Moussa dañ lay baye nga tagato aussi wax sa dernier mot wax sa ay rêve tamit tagato ak 13 TV parce que moom mënuñu li ko yo yëpp mënuñu ko wax. wa gis nga wa man wa 13 TV ma lay nuyu si liggéey ñëw fii nii ñëw seet suñu waaw jël sen temps ñew fi seraan suñu entraînement wa ba hmm. maa lay nuyu di leen gërëm maa ngi nuyu tamit bépp sama morom joueur kuy rêvé doon pro amul bàyyi amul dara ambition la dañuy focus ba mu jeex amul découragé amul dara. jaajëf tey euh, Moussa Kanté la ñu dalaloon euh, nekk le numéro 10 euh, de l'équipe pro doomu Assane Fall nekk aussi joueur am parce que depuis à bas âge moom moo ko yore Dakar Sacré-Cœur moo ko formé depuis à depuis 10 ans day seen ak ku fi nek formation bi dugg fi sax yomb donc depuis 10 ans mu nek fi donc formation bu deuguer lañu gis si moom ren ñu gis progression bu maga maga mag match retour yi gis nañ Moussa ci benen xar kanam. trois derniers matchs yi wax na ko léegi dugal 3 buts def 5 passes décisives jouer 24 matchs ci saison bi donc Moussa dañ lay souhaiter bonne chance Lyon bi ngay rêvé dem ñu ngi la koy souhaité bu baax a baax di la wax Tris TV mu ngi lay jaajëfal di la wax bonne chance. di remercier aussi Doudou moom mooy chargé de com Dakar Sacré Cœur mo ñu faciliter liggéey bu baax a baax ak personnel Dakar Sacré Cœur yépp di leen jox rendez-vous à très bientôt jaajëf les merci. ok merci merci. ok bonne chance dégg nga ok ndam rek incha allah.